yaa ngi doon joxe lenge yi lan mën a yëkkati waaw di sant yàlla di sant yàlla bu baax di sant euh, président Macky Sall bi nga xam ni jot na ma fal ci juróom-ñetti poste nekk naa fi président haute autorité nekk fi président conseil d'administration bu ay AIBD nekk fi ministre de la jeunesse et du tourisme donc ñuy sant yàlla bi nga xam ni moo jaarale ci président Macky Sall ndomba tànk yooyu yëpp def nañ suñu kéemtalaay kàttan ngir jubal def nañ suñu kéemtalaay kàttan ngir taxaw ci dëgg def nañ suñu kéemtalaay kàttan pour que liggéey ak yaakaar bu yi amoon ci président Macky Sall mu am tey rusuñu parce que ci fukki at ak ñaar amul benn sénégalais bu mën a miim li mu def ci réew mi ak li yokk ci réew mi léegi nag. tey euh, yàlla ak sénégalais yi tànn nañ beneen président mu indi beneen équipe ñi ngi ñaan yàlla mu may leen ndam ñi ngi ñaan yàlla mu may leen euh, taxawaay ndaxte li ñu dig askan bi ñu def ko parce que njariñu lépp la lool waaye ñu bàyyi parparloo bi ak wax ci ak leneen wax ñaaw bu dul fenn dama koy wax parce que juróom ñaari at jàpp la sàcc nga sa njaboot say rak sa jabar sa soxna jël say photo jabar daf dem indi ku nekk ba lay yor xaalisam yi nga xam ni loolu dong laa def ci fukki at ak ñaar yi nii amul ci benn poste koo xam ni dinañ la jox alalu askan bi ba koy mën a jël alalu askan bi ñi koy yor dañ koy xam poste yi ma lim nii yooyu yëpp doo jotee alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo da ngay nangu waaye ñu xam ni que metti woon ñun metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñu njaboot metti na ci suñuy wayjur surtout bu la yàlla nattoo nga am wayjur bu mel ni man man sama wayjur dafa bâtir réputation ci réew mi avant ñu may xam mu samp am taxawaay ci diine di wax di jàngale di xutba di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar leen seen doom ci maandu yar leen seen doom ci lii ñu xëy jël taawam ni ko jël na vingt neuf man ni ma ko dundee metti na mais moom ni mu ko dundee metti na mais yàlla moo wax ci alxuraan wal asr innal insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñii même yonent yàlla moo wax wal asr innal insaana la fi xuus doomu aadama bépp nag yonenteeg sëriñam ñëpp ci biir lépp lu mu def perte na ko illa lazina amanu wa amilu saalihaati ba mu des ñi gëm cay julli watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr nekk ci dëgg waaye ànd ak muñ yàlla moo wax loolu donc ñu ngi sant yàlla li ma leen wax sànq mooy li ma laaj rapport boobu am na mooy premier rapport man boobu Mame Mbaye Niang bi ma gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo lu xam ne mën naa cee wax mais sama àqulaay taala damay wax ni ko am na janvier 2024 bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu pré rapport wu rap am na laaj nañ ma ci tontu naa donte am na ñu jàpp ni que liñ ma laaj sax waruñu ma ko woon laaj waaye ngir njekk ak teraanga ak wormaal ña laaj damay tontu. donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a la ma waxoon démb mooy li ma wax tey moom laay wax wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci Mame mbay jël na tarfatal ay ni nee naa la buñ ma woo nañ ko publier man maay yóbbu sama bopp donc ñu ngi sant yàlla. kon jàppal ne que comme que yaa ngi ma gis nii ma taxaw. Mm-hmm. et man rapport boobu ngay wax aw ma wax ci mais am naa ko man naa ñaar yëpp bu ma ci gisoon kon tey bu ma ci gisoon luñ ma ci jiiñ wala luñ ma taxaw kon du ma taxaw fii yóbbu naa sama bopp bu yàgg. ci nasaraan nga ne réduction des comptes d'exigence. non déedéet dama ni euh, dégg naa président bi wax ko euh, la reddition des comptes a pour plier les organes de contrôle. les corps de contrôle e, loolu mooy organe de contrôle yi reddition des comptes ci seen i rapport day mujj donc ñu ngi sant yàlla mais daal sama waxu dém mooy sama waxu tey ci incha allahu bi mooy doon sama waxu suba waaw politiquement man gis nga ni que yow yaa ngi ma bëgg a wax loo sëñ gis nga ni que tey du waxu politique nee naa réew mi dafa am période politique am période liggéey am nañu Sénégalais yi wóolu nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que nag dal dafa soxla ci réew mi waaye nag euh, boo fàttalikoo rek man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa ki ma àndal bu bàyyee bu génnee langue politique bi ma génn langue politique bi léegi kay altine incha allah sax dimanche kay ma takk samay bagage yëpp ci liggéey <laughs> ah léegi kay bàyyi ma loolu laa ci bëgg. ok merci beaucoup ba léegi chômeur la ah. maa ngi leen di boole bokkal. waaw ah, d'accord. Ah,